mën nañ ne mouvement bi ba mu juddoo ak léegi euh, yàlla def na euh, defagul euh, trois mois parce que li waral mouvement bi gën a taxaw ay ndaw yu nekk fii Montagne Seck ñoo toog waxtaan muy li nga xamante ne mooy si problème mu terrain ASC bi si loolu la juddoo si loolu lañ doon waxtaan ba ñu waxtaanee ci biir loolu ñu convoqué benn élément boo xamante ne dafa nekk ci ci wàllum yëngu-yëngu bi mooy ñi nga xamante ne. quartier bi euh, commune bi euh, délégué woon na leen Abdourahmane Camara jour boobu assisté woon na ci réunion bi ñëwoon na ba mu ñëwee vraiment mu wax ñu waxtaan si affaire bi ba mu dalal suñu xel ne terrain bi incha allah AIC bi am nañ fi euh, gox bi montagne 5 am nañ fi terrain léegi dañuy fas ne taxawal li nga xamante ne mooy mouvement bi tuddee ko les jeunes de Hann montagne 5 ba ñu ko taxawalee ñu taxawal groupe whatsapp ba ñu taxawalee groupe whatsapp mën naa ne groupe whatsapp bi yaatal nañ ko ba ci diaspora bi. bi information lañ fi am. ak forum sur l'avenir de notre quartier ak question divers loolu moo nekkoon li nga xamantene moy euh, euh, information bi léegi bu ko defee euh, sans plus tarder dañuy jéem avancer un peu ñu xol ñi nga xamantene ay élément lañ ci groupe bi. jeunesse en montagne 5 dafa nek ben esprit bi nga xamantene que dafa ñëw ci bon moment ci période biñ ko soxlawee premier combat bu nekk terrain bi moy que ñaata temps nit ñaa ngi toog di laccé terrain bi ndax dina am wala du am ñu bari des fois sax dañuy jax jaxase xelum nit ñi. naa non doo leen am terrain wala ay dañ leen nax ak dugg na fii génn fii moo tax tey ñu woote daje bi pour leeral loolu bokk na si ki ngay leeral mi ngi ñëw di tudd grand mu tudd grand Abdourahmane Camara nekk benn expert si biir gars yi am si ay information yoo xamante ne que ñu bëri ñu ngi wax te xamuñu ko si kon moo tax tey ñu woote daje bi te du terrain bi rek moo ñu tax a jóg jeunesse en montagne 5 dafa pare pour lépp lu soxal quartier bi. taxawaay boo xamante ne tey fi mu nekk ni soxla nañ ko ci quartier bi ñun ñu ñëw taxawal ko quartier bi. parce que quartier bi suñu quartier la buñ ko defaree suñu quartier la buñ ko defarul suñu quartier la mais jóg nañ tey fi mu nekk nii pour defar quartier bi loolu moo ñu tax a jóg amul leneen lu ñu tax jóg nekkul dañu jóg pour naxe wala dañu jóg pour def loo xam ne pour suñu intérêt la déedéet bu doon suñu intérêt kon ñu ngi toog suñu kër mais dañoo jóg tey pour waxtaan ak nit ñi xam nañu bu ñu gisee ñu taxaw tey di wax wala bu ñu gisee tey ñuy dugg ci kër yi di laaj du pour suñu poos pour intérêt dëkk bi la te intérêt dëkk bi nag intérêt ñëpp la léegi bëgg nañ nag ñëpp xam ni muy équipe beeg muy quartier bi muy jàkka jeeg muy lu mu mën a doon ñun ñu seen ginnaaw. foo gis mu baax wala gox boo dugg nawloo leen ndaw yu gox ba la kon ñun suñu ndaw yi ñu am ak gëm-gëm bi nga xamante ne nii moment yi at yu mujj yi nii moom ngeen jël vraiment gëm-gëm bu nice la suñu gëmee suñu bopp ñun ñëpp war nañ mën a dem parce que yaraax dara manqué wu fi. ñun am nañ géej te am na ñoo xamante ne nii amuñu géej am nañ suñu ndaw yoo xamante ne dañuy dem si géej gi di uti yàlla di leen may usine yaa ngi nii tout près su ma sañoon daal ñun ndaw ñi ñu gën a jóg ñu gën a bëggante gën a téyewante ànd. li ma leen di wax daal moo di ne lu ngeen sumb balaa ngeen a jàll ci leen la lu pare ndax itam d'accord nekk ci lii tey suba nga demaat ci leneen dañ lay seet beneen bët loolu dafa gën a bëri fi nekk nii looy daal fexeel loolu ngeen continuer comme li ngeen wax ci terrain bi yaakaar naa comme tara bi fi ne nii am na lu mu ci xam ndax li commencé ferraille ba montagne 6 ci yoo restauration bu leen bokk maak moom ci bureau bi leen bokk am loo xam ne su leen réeré su ngeen ñëwee ci moom mbaa ñu won leen fi ngeen war a jaar di ngeen xam li fi ne dañ daan créer ay journée d'étude ut ay atelier kenn ku nekk di génne xalaat di teg bu ko defee ñu daje loolu yëpp def ko muy benn projet e ki ñu jiitee dem uti ko ndax euh, yaraax tam ñu ngi koy defar mais montagne 5 affaire man gisuma luñ ci def te y a trop de jeunes y trop d'associations yoo xamante ne nekk nañ fi kenn ku nekk groupe bu nekk association baax na de ndax kenn ku ne am na loo ci dox mais li am solo mooy communauté bi.

ba nga xamante ne ëllëg ak si biir képp ku ñëw di fi dugg dinañu tàggu parce que lii ñun ñoo ko moom suñu gox la ñun ñoo ko war a liggéey lii buñ ko liggéeyee njariñ li du mujj fenn lu dul ci yéen rek lay mujj mais rafetlu nag ordre du jour bi premier point bi yaakaar naa buñ nee terrain Manar Sarr suba bu ñu yewoo ñu ne ñu terrain bi kenn du fi am fu jeunes yi footballé parce que terrain bi def nañ ko li terrain bi def nañ ko la dama ne ñi dëkk terrain Manassar fi bu amul terrain ñom di lañ génn ci cité bi parce que nak ñun ñi xex cité bi kenn ci ñun amu fi parcelle te bañu xexé ba pare dañoo ak ñom lu leer nañ ñun soxla wuñ fi dara terrain lañ fi soxla bu suñu ASC football terrain lañu soxla bo xamantene ñun ñi tay bu ñu amé ay activité ay manifestation mën ko fa def ñu ne ñu benn terrain bi dina am plan yi jox nañ ñu ko gis nañ loolu ñaar ñu ne ñu du ngeen am centre boo xamante ne nañ ak foyer bu ñu leen di defal fii ngeen mën fee def seen i activité kon tey ñun bu ñu ñeewagum foyer bi nga xamante ne moo nekk montagne 6 ñoom projet bi lañuy wax ne nañu fàttaliku ne loolu ñu ñu waxoon ñun jàpp nañ ko de te fàttewuñu ko de dëkk bi nag li koy doxal du ay détail dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi moo ko gën ñun bu defar dëkk bi jotee dañuy taxaw dañuy xeex dañ ciy jàpp parce que loolu mooy suñu devoir man munuma dëkk montagne nangu montagne di yàqu munuma dëkk montagne nangu montagne di sànku bu ëllëgee ñun ñii la ñuy xas ñun ñii la ñuy xas kon ñun tey gàcce ngaalaama ñii fi dëkk terrain yi du woon terrain bi kese de ñetti terrain la woon ñetti terrain la woon zone de recasement yi ñoom ñoo sàggan bàyyi terrain yi ba seeni borom jël ko ñeneen jël ko bii ñii fi dëkk waa koñ bii ñoo ci xeex ba jot ko fii kenn mënuñu fi génne buñ fi amee kër dañ fi réunion buñ fi amul kër dañ fi réunion parce que dañ koo xeex ñun biñ koy xeex te dugg leen ci tool bi ñaata nit këru montagne ñoo fi am ñi dëkk montagne barewuñ fi ñi ci des ñëpp fu nekk la ñu jóge dëkk fii kon nan ñu dellowaat suñu cër

muy wàllu fii ku nekk xam na ne sunu jàkka ji dañ cee war a jug jàkka ji nag jug ci nekkatul jàkka ji nekk jàkk jàkka ji jumaa la war a nekk jumaa jooju lañu war a taxaw ça fait presque un mois woote nañu sitting fii ci mbedd bi cafétéria croisement bi di wax ci jafe-jafe bi ñu am fii ci biir koñ bi mooy insécurité bi nekk ci passerelle yi insécurité bi nga xamantene ne passerelle fi jot a ñi ngi agressé nit ñi benn buntu mo fi dess Kappa ba séras benn buntu mo fi dess moy croisement cafétéria man dama defoon buntu bi dinañ ko fatte sax ci week-end bi Maris mom dem na ak bopom actuellement Cité Elisabeth dem na ak bopom Kër yara dem na ak bopom ñun rek ñoo am problème ñun ñu dëkké ci booru ndox bi parce que ñëlé bu ñuy ñëw ci jël taxi bu jaaree maris mu dem yoonam tata bu doon jaar fii xale buy xëy jàngi maris lay dem léegi bis bu doon jaar fii maris lay dem taxi boo ne yaraax bu la waxul 4000 ne la 4500 wala 3500 est-ce que loolu mun na dem te ñun ñu ngi toog croiser les bras di seetaan jëf boobu ci biir dëkk bi il est que doomu yaraax ñu yeewu il est temps que ñun waa montagne li ñu daal dara gënul metti nag jumaa ji bu ñu tëjee yoon bi

Yarakib maire yi moo pavé ci xaalisu maire suñu alal la ñun ñëpp montagne ñun dañoo mëna muñ dañoo nopi mais nak il est temps que maire ngeen gëstuñu li commune bi yépp moom ngeen duggal ko biir montagne. gis nga affaire agresseur bi femme bi wax charo yi boo fa dégg agresseur ku ñu gis agresseur dañ lay jàpp dóor la ma nga dee koo wax mu ne man du xoma du man mais bu fekkee day bàyyi ku ñëw def lu neex dem sa yoon du am problème te encore tëli bu jaaree fii. léegi nag a garaaw que façon nit bu yëpp dafa dugg il faut ngeen xam loolu da ngeen di ubbi seen bët du xool ku gis lu jaarul nga dama ko sa morom ngeen ànd ngeen dóor ko mu daan mais bu ngeen jógee di wax ku ne naan ci kii fee kii da ngay indi problème rek doomu aadama li mu nekk dañ ci dëggu réew mi ku ñu fa da ngay perte doo mujj du mujj fenn ñu dëkk ci dëkk bi nag ñoo war a jàppale nit ñi ku ne ku gis sa morom la def lu yoon nga ne hee li nga def du yoon kenn ñëw wax loolu kenn ñëw wax loolu ko defee jàmm na ñooy nit ki da ngay tam sa xel ci lépp gis ci Il bi xel koy il faut ñu def attention lutax ñu war def attention mom moy gis nga bi tourner ni il faut yow nga xam la ba d'abord par exemple ñi ngi wax faut niñ ko ak niñ ko waral ak fi wara am ak fi warul am je pense que disposition projet bi lu nga euh, ñoom soo fa demoon ci projet bi laaj leen peut-être dinañ la wax disposition bi tax peut-être loolu amul su fekkee ne li la ci wax doy na la am nga droit ci chaque entité nga wax ne kat ñun waxuñu ñu woon loolu wala waruñu woon def lii leen defoon nii nangam nangam ba ñu discussion ba trouver solution pour man si procédure yooyu bu si jaaree ba pare suñu wax ak ñoom te waxuñu dara lu xam si ne mun nañ ci téye moo war nañ mun a defaat beneen pas beneen jéego lekkat waxoon ngeen ñu lii mais lii amul

nee fi waa ji waxee bañ jam ko paaka foofu la keneen ki waxee ba mu jo ba nit ki jooy alors yow yaay set ban angle ngay jëlee say kàddu alors li andi restructuration waxtaan la woon ay nit ñoo toog ci benn jamono te c'est né sax à partir donc euh, de 88 après 2002 dëggantaan premier conseil euh, interministériel bu am sur la dépollution de la baie de et te boobu sax waxu ñoon dépollution de la baie de assainissement de la baie de alors ci lolu nonu assainissement bi ci la génnoon ben deuxièmement ñu wax ci restructuration agrégalisation régularisation foncière ci conseil interministériel bobu troisième bi euh, la dépollution de la baie de alors donc euh, lolu nonu mooy historique bi xam nga les combats citoyens tay ji li ñuy toog nii pour quartier bi Euh, bu fekkee ni tey am na kenn ci ñun ku ko mën a def moomeelam ba mën ko utal turam ak santam rek mooy ku gàtt xel la ndax maa ko def mu sotti moo dàq ñoo ko ñoo ko def mu sotti moo gën maa ko def mu sotti ndax quartier bi dëkk bi ñi ko taxee woon ñu ci bari tey gisatuñ leen ana Diallo Sidi ana ñoom Papa Babacar Mbaye ana ñu ana ñu ah ana ñoom Baye Demba Dem ana ñu ana ñoom Baye Samba Camara ñu bari tey ñi fi nekkoon taxawal quartier bi am mérite nekk ñu fi nekk ñu fi tey alors kon ndey yooyu ak baay yooyu war na ñun ci jataay bu ñu nekk ñu sargar leen te delloo leen njukkal te xam ni yaraax commencé wul tey mais quartier Hann Montagne aussi commencé wul tey alors loolu nag tey moo doom yooyu nga xamante ni waajur yi ñoo leen meññ fii jàngal leen diine jàngal leen ngor dugal leen école ñu war fee mën a tekkee jariñ fi dund fi dee fi ñu sul leen fi day rafet nag ñoom la mag ñi andi woon ci xel mu rafet ak xam-xam andi woon ko ci déggoo ak juboo bu fekkee ne dëgg-dëgg ndono kër bàyyi ñoo ngi fi ñun nag ñu war a ànd ak ñoom seetaat nan la ñuy tëggaatee suñu dëkk ba ànd bi gën a rafet ba mu gën a ñoŋ looloo tax jeunesse su Hann Montagne ne ñu daje ñu waxtaane waat suñu quartier ñu seetaat comme restructuration am na ak régularisation foncière parce que ñaari mbir la restructuration la ak régularisation foncière ñoo ngi fàttali aussi que Thiaroye amagul restructuration sama kilifa gi Caaroy amagul restructuration la fa parce que projet yi bokkuñu financement yi bokkuñu la baie de Hann ki koy financé union euh, euh, euh, AFD la union européenne moo financé la restructuration et la régularisation foncière état du Sénégal jëndal ñu terrain bi à un milliard huit cent millions sous Abdoulaye Wade am nga alors loolu baax na ñu fàttali ko aussi deug, deug, baax na amna am amul njëriñ Tay, li ci ëpp tey mbaa fay nañ ma liñ ma fay doyul dañ ko il faudrait aussi que ñuy ñu ciy bolé touti xam-xam ak fateliku ndax restructuration bi li tax tay mu juddou terrain ñu am mètre carré bi tay yara ñu koy 3000 francs mètre carré bi ci restructuration bi ko mais terrain ñom ñu 30 millions 35 millions même voire 40 millions kon ñom ñaata la jaay le mètre carré Maris ak Yarax ñoo mètre carré le mètre carré à Yarax il coûte 200.000 000 francs comme ni muy jaree ñoo mètre carré sauf si c'est ça la valeur vénale léegi si nous ñuy des restructurations ak régularisation foncière nous avons une population yi ci biir GIE ñu def réunion publique d'information plusieurs parce que restructuration bi 15 ans nous def plusieurs réunions waxtaan ak des dëkk bi GIE des quartiers ñu waxtaan ba d'accord ni kat comme ñun suñu dëkkuwaay yi kat dañ ñu fee fekk ñu am ndox am courant ñu am ay tabax waaye nag ñu manqué ay yoon ñu war a yàqali yoon yi parce que lotissement mooy da ngay fekk terrain mooy amul dara ñu defaraat ko fàq nit ñi ñëw defar lañ fa fekk mais fii restructuré mooy dañuy jooyantiwaat ak a jubbanti ak a yàqali mbedd yi waaye bu fekkee dañoo tëjoon ñu seet nan la ñuy tijjeewaat mbedd yi alors restructuration bi ce moko lanen li ci toftalu moy restructuration foncière moy suñu kër yi amutoon kayit léegi kayit ñun dañ koy am te am c'est que papier bu am importance la parce que euh, droit de superficie lay doon parce que kayitu yi dafa titre foncier léegi nak bo ñu lay wax que ni bon rak euh, titre foncier euh, droit de superficie droit de superficie bobu kër gu nekk ci biir yaraax dafay fay 3000 francs mètre carré bi jar 200000 GIE de quartier yi waxtaan ak fondation droit à la ville ce que je représente l'État du Sénégal dans le projet ba ñu jëndé ko 3000 francs le mètre carré moo tax kër gu ci 150 mètres carrés. nga da 150 mètres carré fois 3000 francs mu war a dans l'ordre de 450 000 kon vous xoolee ni mètre carré bu 150 000 bo amoon mètre carré bi tey à cent cinquante mille nga am cent cinquante mètre carré nga bokk ñaata ngay fay yooyu dañ ko waxtaanee woon ay xalaat la kon ñu ngi timis ñi jaay fii lu bon wala ñi koy def ci kër yi la ñuy leen di protéger sa dom bu ñëwee amul liggéey amul dara mu dawal moto boo xam ne quatre lay jar mais da nga koy mu ñëw nga laaj ko fan nga jëlee xaalis bi n'est-ce pas.

sécurité moom boo koy wax ci yow lay commencé d' abord loolu ñu tubaab bi mu ne tubaab bi tey jii tera bu comment dirais-je bu gisee benn oto bu gaare ci buntu këram deux heures temps rek woo na police mais fii oto dafiy gaare trois jours xamuñu lu nekk ci oto bi kenn du ko lijjanti waaw kenn du ko lijjanti kenn xamul lu fi nekk kenn xamula ay cëru nit lañ fa dagg dugal ko parce que gars yi léegi euh, ñi trans ñi ñiy jaay euh, euh, comment dire rein affaire yooyu dañuy jël glacière def ci glace dugg ko ci maal oto bàyyi ko fa keneen ki mooy ñëw taal yóbbu donc loolu yëpp oto bu suspect da ngeen di woote. léegi man am na loo xam ne bon aw ma droit milité ci benn ay association yooyu parce que sama sama statut mayu ma ko mais yoon may na ba ma nekk conseiller sécurité ci sama pour sama gox donc loolu laa bëggoon ñu teg ko su ko defee. ñu def benn comité de pilotage pour sécurité koñ bi am numéro vert yoo xam ne dañ koy dañ koy teg ci boppu koñ bu nekk numéro vert commandant brigade bi lay nekk ak permanence bi de ce fait suñ paree ñun dañ def benn délégation dem seeti ko waxoon am nañ benn euh, comité de vigilance bi fi nekk ci koñ bi ñu délégué ay ndaw moom am ay mag ñu dem fa su ko defee nag ñu prévenir leen ci lépp lu am. li mu ci wax nangul nañ ko ko te incha allahu taala loolu jàpp naa ni mën nañ ko def ci nu mu gën a gaawee. Euh, pour Dodani aussi nous avons euh, projet projet de restructuration et de régularisation foncière FDV en compte normalement su fekkoon ni jaar na euh, mois de mars war nañu pare ñoom mois de mars mais bu nous paree travaux yi dañ un an parce que lépp luy voirie ak assainissement ñoom assainissement

fondation droit à la ville ak population Il li ñu les pénétrantes les pénétrantes au début c'était 12 pénétrantes Nous avons waxtaane ko ba finalement ñu avons 8 pénétrantes pénétrantes yi mooy mbedd yi jógee taliba jëm Les gens ben longitudinal la ñu la en compte c'est la voie principale la talibans, tali bi magasin dem en trois bële la voie tertiaire mais il n'a jamais été question dans le projet de prendre ça en compte Maintenant, aujourd'hui, nous, population, rien ne nous interdit, aujourd'hui, avec notre commune, nous, avec notre commune, waxtaan ak xamal lan mo fi ba parce que aussi tay lolu man mais day fekk aussi projet bi euh, ou bien ci projet bi ci biir waxtaan commune bi en tant que conseiller municipal ñu voter ben budget pour lolu ou bien ñu nous ko projet nous ñu dem outuat financement c'est bien possible. amna ay problème yu bari yu ñuy xaar sur. ci car rapide yi mais euh, njaga njaay yi ak mais fii du seen yoon loolu ñun ñoo ci war a mën a taxaw ànd ko ak suñu commune wax ko commandant de brigade et luy saafara la ci lu gën a gaaw mais am na loo xam ne nag suñu problème la ñun te loolu il faut ñu waxtaanee ko parce que waa ji bu tegee fii mbaaru kafeem di fi jaay kafe mais ñun ñoo koy dëgëral dooleel ko mais ku teg taabalam tam di jaay ñun ñoo koy dëgëral daal te dañ bëggoon dëkk bi gën a rafet gën a baax gën a taaru mais bu ñu dëkk bi tamit fi ñu war a gaare parking gars yi def ko parking automobile ñun tamit ñooy nanguwaat loolu alors yooyu aussi ay jafe-jafe la yoo xamante ni ñun suñu biir duñu ñu tojante bopp mais mën nañ am association yu forte am ay mobilisation yu am doole lépp nag ñu teg lal ko ci xel mu rafet ci rafetoo ci biir bokkoo waxtaane ko ci xel mu dal ci dal ak tey ci jàmm ak salaam ba kooku noonu ñu xamal ko ni kat dëgg-dëgg bu ñu sañoon nii la ñuy defee beneen bi tamit sécurité tamit wax na ko ku ci nekk ci ñun dafa war a nekk benn vecteur d'information mais deuxièmement aussi war na xool ñan ñoy dugg ci quartier ak ñom fi fiy c'est c'est très important mais ñu ñaan également suñu commune tamit muy tal lampe yi donc amna lampe yo xamanteni xamante ni gars commencé woon nañ ko tal ci projet bi la mais bu fekkee lool yépp ñaan lépp nag dañ koy waxtané ci xel mu dal ci dal ci té ci jamm yoy bu commencé am dina wañi dina wañi euh, insécurité bi man yaakar na ni daal euh, li ñu tàmbali ni euh, buñ ko continuer ci ni ci mbaxu yalla katanam euh man nañ ci am résultat escompté yépp waaw donc euh, tambali nañ ko nañ ci and ak euh, suñu ay ndey ak ay baay ànd ko ak suñuy magi dëkk ko ak délégué yi and ko ak conseil de quartier bi and ko ak association bi pour ñu waxtané ko et puis ñu beneen bi pour le terrain là terrain wu football bi ñëpp xam nañ ni sante yalla mo fi doon entraîner alors terrain boobu aussi terrain multifonctionnel lay nekk mais également c'est une organisation bu structurée demain ànd ko ak suñu GIE ànd ko ak suñu magi dëkk dem waxtane ko ñu joxat ñu la gestion lolu lu lu yomb la